bañ a ànd ak man amaana mën nañu réeroo wante xam nañ Barthélémy Dias man du ma naa fekk man ma bëgg a ma bëgg a wax ci leer lu ñu def tey suma buntu kër xale yuñ fa jàpp kenn rek mooy yeewu Dakar ci xale yi kenn rek moo ci moo ci yeewu ñetti ñëpp ñaari ñoom ci gàttal ñoom ci gàttal dégguñu sax wolof dégguñu wolof j'ai demandé à ma sécurité ils n'ont qu'à remettre les téléphones aux éléments de sécurité chargé de l'enquête lu ma mën a wax ci waxtu bii nii mooy li ñu jàpp dëkkuñu Dakar dañ leen fi indi te dalal ci këru benn responsable bu bokk ci benn parti politique te responsable bu mu ngi dëkk Wakam fa laa mën a yem ci nag ma bëgg wax ci leer parce que gis que ay euh, Maïmouna Maïmouna ses enfantillages vont arrêter man ak yow mën nañ bañ a am mën nañ bañ a bokk gis-gis mën nañ sax réeroo wante amoo droit def yenn yi di ko jëmale ci man aw ma droit di def yenn yi di ko jëmale ci yow parce que nous sommes d'abord des sénégalais ensuite ñun ay jullit gis nga yàlla mooy teg doomu aadama nattu yàlla su waxoon tey yow mii may mun a balaa minuit lii ngay doon lim def munul muus te waane na nga ko déggee noonu yàlla yàlla tey teg la napp te dara beesu fi nga ne dëkk bi kenn du fi am jàmm na ko déggee noonu ñëpp ay am jàmm yow nga am jàmm wala à partir de maintenant yow ñun du ñu am jàmm yow doo am jàmm suñu njaboot yi du ñu am jàmm yow tamit doo am jàmm sa bos tamit doo am jàmm parce que je veux que ce man suma kër waxuma suma ko kër ma maison n'est pas attaquable Le reste maintenant, au besoin, si les gens ne font pas preuve de tenue et de retenue, nous réglerons nos problèmes dans les rues de Dakar. Parce que souvent, on va, Modou va nous proposer euh, les images euh, des gosses qui nous ramenent, euh, dañu leen jàpp sa sa sa kër en attendant que Modou Diouf proposé ñu ko su ma déggee sa wax yow da nga identifier xam ñi nga xam ne ñoom ñoo la attaqué fan la joge jóge kan moo leen yónni d'après les informations voilà Modou euh, voilà je, laisse passer l'ambiance donc ñii ay xale la ñu xale yi ñaar xale la ñu dëkkuñu Dakar ñaar ci ñoom dëkkuñu Dakar mais nag ñaar Dakar dëkkuñu département de Dakar dëkkuñu région de Dakar dëkkuñu Figueres dëkkuñu Wolof ils sont originaires de quelle localité. ci parce que Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ah ñaar je le répète pour la dernière fois nous aurons la paix par force plus personne n'aura la paix. parce que da ngeen interviewé xale yi ñu wax leen ki leen yu ak fan ban parti la ñu bokk. j'aurais souhaité que certaines images ne soient pas montrées dans ces vidéos. parce mes éléments de sécurité xale yi. interroger Modou Modou Modou Modou. Euh, dama ne xale yi kenn interroger wu leen xale dañ fii ku fi reewantu ñu won la ko xoolal reewantu tubéy. mais est-ce que warul leen woon. déet livrer leen à la police. déet la on s'est pas justice soi-même on est plus en république. kenn du ko def yaa may dégg. on est plus en république. en république ku la woo ci maa tey nga wuy si ko ci maa tey yaa may dégg wuyu bandi mooy bàyyam man Barthélemy Diaz yebuma kenn Sénégal kenn du ma fontoo wax mbëgg wax ci leer ñu fi tey teg. seen bopp ci benn situation de victimisation ma bëgg a wax ci leer te Sénégalais yi mën nañ ma seede je ne suis pas à l'origine de leurs problèmes ok vous allez me lâcher les baskets et le plus rapidement possible vous me connaissez da ngeen di fooyee seen xel rek vous me connaissez très bien mu neex leen vous allez me foutre la paix je m'excuse l'expression mu parce que dañu xamante c'est la force ou bien je règle mon problème. man pare Les jeunes sont mis à la disposition de la. et ces jeunes sont envoyés par un responsable de Pastef bu dëkk Wakam. je ne cite pas de nom de parti je dis que ces jeunes parmi ces jeunes a un qui habite de Mermoz Sacré-Cœur. je ne parle pas de parti parce que dans les partis politiques il y a des personnes réfléchies et des personnes sensibles. mais Barthélémy aussi il faut nga wax wax ji. mais dama ne xam nga man xam nga man xam nga man du ma daay wax ci dama ne ils sont quatre. les deux dëkkuñu Dakar du département du région te dégguñu wolof les téléphones ont été exploités ils ont été proprement corrigés avec la forme sous mes instructions parce qu'il faut que je sorte on a même refusé que je sorte de chez moi xam ngeen man su ma génnee kër léppay xumbate dagan dama bëgg a wax ci leer man su ma génnee suma kër léppay xumbate dagan maintenant nag damaa jëm mag tey su ma doom moo su ma doom am na doole bu toll nii mën ma téye man di bàyyam maa ngi ci petit depuis dix-huit ans musuma song nit physiquement dinaa la attaquer verbalement dinaa la attaquer moom la constitution may sañ-sañ homme politique mu mën ko utiliser dans le monde politique mais il n'est pas question d'accepter que des gens qui sont victimes d'une injustice ñëpp xam nañ ko mais dara beesu fi ñoom balaa ñu nekk victime d'une injustice nous avons victimes de la même injustice ñu décider que nous qui ne sommes pas à l'origine de leur problème ñun du ñu am jàmm. mais dafa continuer. même rek même rek ma ñëw xam nga xam nga tax bëgguma sori ci mhm. parce que lu ma indi fi tey mooy waxtaan ak askanu Sénégal Sénégal toll na fu ngeen xam ne nii il faut pas qu'on accepte la diversion ce pays actuellement est à la croisée des chemins ñaar mooy am yàlla suturaal ñu ñu génn ci lii. pour la postérité wala yàlla amaana mu jëppi ñu teg ñu natt bu nga xam ne ni xaw ma gàttal Sénégal di ci di ci di gisaat boppam dans le conseil des nations respectables ce qui se passe actuellement au Sénégal est une extrême gravité moo tax man ma nangu man ci principe dem waxtaan avec la personne qui quelque part est à l'origine de presque toute cette situation. ku comprendre tout le message xam na ne vous vous adressez à Ousmane Sonko bu amul jàmm yow boo amul jàmm moom du am jàmm. su amulee jàmm kenn du am jàmm Sénégal laa wax man waxuma Massamba wala Mademba. voilà Maïmouna Maïmouna Maïmouna man je refuse d'insulter l'avenir parce que damay politique te damay fàttaliku démb ak bët ki démb parce que ñu ci bëri tey ñiy xataraayu parce que c'est de ça qu'il s'agit am na bés ci bërëb ci waxtu saafonte naa ak seen ay wujur yu jigéen saafonte naa ak seen ay soxna saafonte naa ak seen ay doom am na lu ma rus a def mais man koy ci bible bi laa wax ci bible bi laay waat su ma waa kër suñu amulee jàmm seen waa kër bi ñu am jàmm su ma doom yi suñu amulee jàmm ma waat ko ci yàlla seen doom yi du ñu am jàmm te may biiraat waxtu ku fi juum songaat suma kër du ngeen faral kër te laa yem nag ci waxtu. parce que yow. non wolof Njaay nee na wolof Njaay nee na. wax bu yegg wolof Njaay wolof Njaay nee na du ñu gis ku fayu la ñuy et j'ai les moyens de me venger j'ai plus que les moyens de me venger parce que askanu Sénégal jóguñu song